auzu billahi min asheytaan irrajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ursil arrahma sayiduna wa moolana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman barke xadimu rasul bokki julli di bokki taalibi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu noo ngi leen di nuyu te di leen ziyaara bu baax di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar yi cheikh Mouhamadinil Muntaqa ñu di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko yàlla na yàggale naa mag ña te toftal ci yéeney boppam tan ànd ko moom ci barke Xaadimu rasul di ñaan kenn ku nekk ci ñu nit yàlla na nga jëf ci sag taalibe lu sëñ gërëm ko ci barke Xaadimu Rasuul di nuyu jataay bu am solo bi nga xam ne. benn barab la ci barab yi sëñ Tuubaa yi di waa dayra muqaddimatul xidma noo ngi leen di nuyu ci turu dayra safinatul amaan bi nga xam ne moo lëkkale réseau man yi nekk ci Tuubaa yëpp noo ngi leen ci ziar baax te leen nuyu tur yi nag muy tur woo xam ne Cheikh Sidi El Muxtaar moom Cheikh Mamadou Lamine Baara yàlla na yàlla dolli ko ngërëm te dolli ko leer moo nu joxoon tur wi fële ca kër na ci ziar buñ amaloon doon ko fa ziar ci at yi woon daayira bi it di mbokki taalibe yoo xam ne ci dëkk bi lañ nekk di Touba doon taalibe sëñ Touba it dégg sëñ Touba ci lu bari it am yéene it liggéeyal sëñ Touba ngir làq ngërëmam ngir sëñ Touba kenn ku nekk ci ñun xam na ne bim tukkee tukkee bu mag bii mu tukki woon ci tukki bu am solo boobu. bi mu ñëwee rek dafa wax loo xam ne kenn ku nekk ñun waroon na nga di ko liggéeyal sa adduna sa jurub sa jurub dund muy ij'al ruju'i ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jami xalqi niiraana waaye loolu doyut waxoon naa ko léegi mu xaq mu wax ne wa xaqit ya xawaayi jël la si naddaamu fi xidmati wa ablahum maaraamu kon loolu war naa tax kenn ku nekk ci ñun futteeku liggéeyal sëñ Tuubaa sa kéemtalaay kattan mboolo mi nag bañ déggee loolu muy bayit sëñ Tuubaa yooyu lañ fa teeku ci liggéeyal sëñ Tuubaa ci fànn gi nga xam ne fa lañ féete muy kaabul réseau noonu nag ay taalibe ñu nekk ci dëkk bi yoo xam ne lépp li sëñ Tuubaa bind yër nañ ci lu bari ba tax na liñ bëgg ci dëkk bi muy wormay Tuubaa kenn duñ ci jiitu ndax kenn gënu ñoo xam ne sëñ Tuubaa bëgg ci dëkkam bi ndax dëkk bi sëñ Tuubaa ko liggéey da ko ci liggéey ak jaamu yàlla kon benn murit boo xam ne bëggug sëñ Tuubaa ngay dàkk wurte génn bëggug sëñ bi te bëggu sëñ mooy tënku li ndigal tënku ci ndigal yi nga xam ne moom la Cheikh Mamadou Muntaxa bëgg ci dëkk bi euh, ñu di ko bëggale ñun Rosamane yi nag suñu yéene mooy waxtu wu nekk ñu ngi jël suñuy addiya di ko yóbbu Touba ca kanam di ko yóbbu ci barab yu bari yoo xam ne barab yu ñuy liggéeyal sëñ Touba la yàlla dogal na nag Muxaddamatul Xidma euh, doon nañ ko xalaat ci jamono yi yëpp jamono yi wees yëpp ngir bëggoon fee ak si joxe fi suñu liggéey waaye tey la ko yàlla dogal ñu waaj ko waajtaay wu gàtt nag waaye incha allahu taala li tàmbale ci tey ba ilaa ajala musamma sunu addiya da dut fi dakk di ñëw ngir xam nañ ne fii barab lay ci barab yi nga xam ne barab yi sunu borom subhanahu wa taala yi la te wa anna al masajid lillahi fala tad'u ma'a allahi kon nag barab yi barab bu am waay la te kenn ku ne gis na ci Cheikh Mouhamadoul Moustapha Mbacké ni mu ci sonn woon Cheikh Mouhamadoul Fadal ak njaboot suñu tubaab yëpp ba ci Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi kon nag kenn ku nekk ci ñun yàlla na ci yow nga defindi indi sa addiya xëy na ñi ah. xam ne mu xaddimatul xitma barab la bu ñu yóbbu addiyee sax bariwul loolu nag xëy na euh, ci côté médiation xëy na euh, fa la dese te euh, xam naa murit gi ñu bari xam dafa am barab yu ñu gën a xamee ci laaj barab bi nag dafa mel ne bukku ci barab yi nga xam ne dañu naan jox ñu jox ñu jox ñu waaye kenn ku nekk war nga xam ne am na lu la fa war nga war koo warloo loolu nag la resomaan yi xam ba tax ñu tënk seen addiya addiya jaa ngi nii sëñ daam mën nga ko jottali sëriñ bi tegal ñu ko ci loxoom ñu barkeeloo ko incha allahu taala fas nañ yéene at mu jot danañ ko fi indi di leen ko ziara ngir di leen ko jàppale ci liggéey bi Sëñ Tuubaa bi nga xam ne yéen a koy def ci jumaa ji yi nga xam ne mooy barab bi nga xam ne kenn ku nekk gis na ci mag ñi niñ ci sonne woon te tudd na léegi Cheikh Amadou Moussa te tudd Cheikh Amadou Fadal nag lii moo doon sunu ziar ñuy wax na it lii defal nañ ko mbooleem taalibe Sëñ Tuubaa bu nekk ci dëkk bi rawatina sunu client yi nga xam ne wax dëgg yàlla ñoo ñuy seetaan bëgg nañu it incha allahu taala lépp lu ngeen ñu jox ci image danañ ko teg ci dëkk bi ñun nag bañ comprendre ne sëñ Tuubaa daam ab daam lu mu bëgg ci dëkk bi te dëkk bi wute dëkk yu bari lañ xam bu yàgg ne Touba am na lu fi war a jàll ak lu fi war a jàll moo tax it xam nañu chaîne yi nga xam ne moom la ñuy diviser xam nañ ko bu yàgg parce que ñu dëkk ñëpp ci dëkk bi lañ juddoo te ñu ci ci ñun wala ñëpp laay wax sax ci yoonu lañ juddoo seen waajur kon nag loolu ñun teel nañ koo comprendre ba xam war may dëkk bi rawatina barab bi di masjid bi euh, loolu moo tax euh, incha allahu taala euh, koor yeeg man dama doon diirub màggal diirub euh, koor gi dama doon diviser image yi nga xam ne fi la fi lay bàyyi koo loola fekkoon geen ñu ñu doon ko def waaye xëy na amuñ si woon seen ndigal nag ak it gën a xam liggéey bi dëgg dëgg dëgg niñ koy defee ba mu gën a jaar yoon loolu incha allahu taala danañ ci jàpp jàppin wu am solo loo xam ne dana wuuteeg euh, jàppin yi njëkk bu soobee yàlla dal lépp loo xam ne ni image lay doon buy bàyyi ko fi barab bi danañ ko ànd ak yéen di leen ko diviser ba bokki taalibe ak bokki jul yëpp mën cee jot wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin sayidina moolana mohammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain waaleykum assalaam wa rahmatullahi wa barakatuh uh, waa daaira safinatul aman ñoo ngi leen di delloo nuyoo ci turu daairatu muqaddamatul xidma di am mbégte lool tey rafetlu jéego yu am solo yi nga xam ne seq ngeen ko ba ñëw ci barab bii ngir waxtaan ak noonu ak andi seen addee ni ngeen ko waxee léegi yoo xam ne da ngeen a bëgg ñu dugaleel leen ko ci liggéey Serigne Touba bi nga xam ne moom la ñuy sumb di leen wax ne kon addee yi agsi na incha allahu taala fas nañu yéene benn fanub safar bu ñu tàmbalee opération màggal gi nga xam ne moom la jublu si liggéey bi dañ leen ko dugaleel ci biir liggéeyub Serigne Touba boobu liggéey bi nag ñu ngi koy rafetlu bu baax ndax ni nga ko waxee léegi. ñu ngi koy siiwar kenn ku nekk ci nun sa kër am na ay câble de réseau yu fa nekk yaa ngi seetlu itam la nga xam ne moo ciy dox xëy na yu ci baree baree baree bare ci li ñuy li ñuy faral di gis image la yoo xam ne yu jëm ci diine lay doon euh, loolu am na solo lool ak xëy na lekk yoo xam ne yu yeete lay doon yoo xam ne njaboot gi duñ ci soppi ko loolu it ñu ngi leen ci sant di ci gërëm di leen ci encouragé ndax it ni nga ko waxee léegi barab bu fekkee da nga caa bokk. Euh, bokk ci ña ko sos ndax say wayjur ak say maam ca ña ko sos lañ bokk la koy dëgëral di ko saxal yow ca loola nga war di xëy ca nga war di waaye lu koy ma lu ne da ko war di daw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin ba nga xamee loola ba nekkon ca wax naa ko sànq itam ci biir waxtaan mi bi ñuy waxtaan yàq yàgg nañu seq ak yéen ab liggéey ci yeneen yu bokkut ak daayirat muqaddamatul xidma magalu Cheikh Abdoul Ahad gi saa buñ koy waaj témoignage yi ñuy jël ak yooyu dañ leen koy jox na ngeen koy jàllale Euh, te ànd ceeg mbégte lool ak yaatal lool te gis nañu ni nit ñi ngi koy def ci yeneen kër doomi Sëriñ Tuubaa yëpp kon nag tey jii bi ngeen egsi ngeen ci biir kër Sëriñ Tuubaa ci boppam nga xam ne moo ëmb kër yooyu yëpp euh, ñu di leen daal jàmm di leen yaatal lool itam ci liggéey bi parce que yéene ànd itam ak yéen di yaakaar ne taxawaay ba ca war bépp incha allahu bi leen ci war yéen da ngeen ko def waaye noonu it bi ñu ci war incha allahu danañ ko def. kon ñu ngi leen di delloo loxo yooyu ngeen tàllal ni ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxe woon ne bu ñu leen tàllalee loxo na ngeen leen tàllal ñaar waaye ñun bu ñu amoon lu ëpp ñaar kon ñu ngi leen koy tàllal ndax euh, dafa nekk barab bu am solo ndax barab bu jàllale ko ay xibaar te barab biit it barabu xew barabu xew la maanaam barabu événement la yu bari dafiy am te yi fi am it yëpp dañ koy soxla ni ko murid yi ci biti di soxlaa di ko seetaan ci site yi ak yeneen ni ko murid yi nekk ci dëkk bi itam di soxlaa te ñu bari ci dëkk bi événement yi xew fii ñii waa dëkk bi dëgg dëgg dëgg dëgg duñ mën a jóg di ñëw ci barab bi ndax ña ngay toppatoo seen i gan ña ngay def seen i yeneen yi nu war a def bu boobaa nag lan ñu koy jot li ñoom mm, dana nekk lu am solo kon loolu taxawaay yooyu ñu ngi leen ciy sant parce que yéen ànd ak yéen di leen wax ne barab bi moom bu ubbiku la ci ñëpp les Cheikh Saliou Mbacké leen wax doonu fekk lu yàlla yaatal ñu di ko xatal kon li am solo rek te mooy wax nga ko léegi mooy barab bi dafa làmboo ay teggin yu mu laaj làmboo ay warma yu mu laaj te yooyu yaakaar naa ne wax nga ko léegi kenn du leen ko jàngal ci njabootu Cheikh Khadim ngeen bokk juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk bi seeni wayjur juddoo ci dëkk bi yaroo ci dëkk yar leen jàngal leen kon la fi day teggin yu ñu war a sàmmonte la doonut luñ leen di jàngal yaakaar xam ngeen ko te am naa rafet njort itam ne da doxe doxee ci loolu nag fas nañu yéene kon ñun itam lëkkaloo ak yéen ci fànn gi nga xam ne ci ngeen di liggéey lépp loo xam ne amati na bi ci événement Cheikh Abdoul Khadir gi nii dana xam naa du ñàkk kenn ci yéen koo xam ne moom lay coordonner euh, ba lépp lu amati mën nañ ko tàmbalee sax ci waaj yi ñuy lal taayal waaj taayu màggal gi waxtaan yi ñu fiy def nga xam ne dañ fi def ay waxtaan yu xaw a takku di ko waajale màggal gi am na ci benn bu mag boo xam ne dañ koy ànd ak comité d'organisation bi at mu jot dañ koy def euh, yooyu yëpp danañ ko man di kii ba ci interview bi am ci biir màggal gi siyaara yi nangam yi yooyu yëpp yu ci bare bare incha allahu taala dana ci mën a jàppalante ak yéen su jàllee it gàmmu gaak yeneen yi ca aajoog yeneen événement yi amaat ci barab bi bu ci mën doon rek incha allah danañ ci jàppalante ak yéen ci na xam ne noonu la ware kon daal ngeen xam ne barab bi moom seen barab la ñu fi nekk itam tàllal nañ leen loxo seen i bokk fi nekk seen bokki taalibe fi nekk yoo xam ne itam Mm, seen dund gépp dañ ko jox sëñ Tuubaa ngir parce que ni parce que ko yéenee liggéeyale waaye ci biir liggéey boobu ñu ci tàllal loxo bépp seen mbokki bi yi nekk ci biir ak yi nekk ci biti yëpp kon nag alhamdulilahi rabbil alamin xëy na lii day luy door a jot euh, lu jot nag dañuy wax ne yomb waaye ba mu waree am sax yàgg na ndax même mbokki taskati xibaar yi nga xam ne ñoo nekk ci euh, gox bi yëpp lu mel nii am na suñu diggante ak ñoom ba jàppalante ko am solo la ñuy jàppalante ci lépp lu fi mën a am waaye lépp itam day jaar ci wenn yoon woo xam ne bu génnee ñëpp gis seen seen gis ne lii mooy li yelloog barab bi mooy li war a génn noonu ñu ko defee ñoom nag wax dëgg yàlla war nañ ko mën a defee ak yéen ndax yéen ci bokk ab ta ay taxawaay rek te ñoom sax am na ci ñoo xam ne euh, xëy na ñeneen lañ fi nekkal ñu nekk ci biti waaye ci njabootu rek bi lañ njabootu yoon bi lañ moo tax wuy si nañ ci woote boobu ba ñi ngi koy seq ak ñoom noonu ñëw di ko seqee ak ñoom nag noonu lañ ko war a seqee itam ak yéen ñi fii daal ay production yu yu noppi dana fi am yoo xam ne yu mën a jariñ jullit yëpp lay doon te yéene nañ jullit ñëpp jariñu ci ci biir réew mi ak bitim réew ni koy joxee nag télévision yi nekk ci biti euh, dëkk bi di ko joxe télévision yi nekk ci bitim réew noonu lañ leen ko yéenee yéen ñi nga xam ne sunuy njaboot ci yéen la ñuy seetaan kon nag euh, ñu ngi leen dalal jàmm di leen wax marhaban bikum ahlan wa sahlan euh, di ñaan sëñ Tuubaa mu nangul ñu liggéey bi wax na ko léegi ñetti bay rek doy na sëkk ci na liggéeyal sëriñ Tuubaa mooy bi muy waxee ne euh, bi wax na ko léegi waqdi xawaaij allazina daamu fi xidmati wa hab lahum maaraamu boobu jar na ko inna allazina saarao li xidmati fa lahum diyaar wasal jannati boobu itam jar na ko fa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi waxfir lahu aw saara loolu lépp nag ku ko faggul ab taalibe ci ab liggéey wax dëgg yàlla kenn wërtuta nelaw kenn wërtuta lekk kenn wartu def lenn te jaarewu ko ci liggéey la ko Serigne Touba kon lépp lu ñuy def rek dañ ci yéene liggéey ko Serigne kon nangoo rek suñ lépp dana baax àdduna dana baax àllaaxira ñoo ngi leen di sant nag bu baax ci jéego yi di leen gërëm bu baax di yóbbante nuyoo itam ci bokk yi nga xam ne ngeen moom ñoom ngeen teewal ñëpp. di leen wax ne liggéey bi itam agsi na des na leen ko defal ci liggéey bi Sëriñ Tuubaa bi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.